comme kàddu. waaw di dem euh, l'honorable Abass Fall euh, gars yi ne neen seen souci yëpp euh, ci ñi ñi acclamé le nom de Babacar Tambédou gis ngeen ko muy noonu Abass Fall waa ñi ngi acclamé le nom de Babacar Tambédou bu nekk loo xamante ne waar la waaw léegi euh, gis ngeen ne section communale bi ñu ngi fii parce nee nañ am na loo xamante ne euh, du ñu bàyyi mu jàll voilà ngeen coow laa ngi entre les militants de Grand et Abass Fall. c'est pas une insulte, c'est quoi? insulte dañ koy relativiser. man la Macky Sall non déglu ma la waaw déglu ma la. donc tu t'en mêler ou quoi? loolu laa waxoon dama wax loolu laa wax. waa ñii waa Grand Yoff ñooy kaas si parce que xam nañ ne Abass Fall lu muy def lu ko neex lay def euh, Grand Yoff a ngi nii nee nañ dañ koy euh, voilà euh, ñu ngi dal ci kawam te bon mooy tout ça va être chaud. Abass Fall mi ngi noonu di daw léegi nag ñi ngi woo euh, le président Ousmane Sonko mu wax ci li ñu mel parce que Grand Yoff yëpp nee nañ dañoo mu mer mënuñu nekk ci base bi di liggéey depuis des années ànd ku ñuy wax El Hadj Babacar Tambédou ñu xam Babacar Tambédou ñu déggante moom guddi di déggante moom bëccëg léegi ñoom waa Grand Yoff ñu dajaloo def ñu am benn consensus ñu mandaté Babacar Tambédou pour mu représenter leen au niveau de l'hémicycle kenn ku nekk xam na Grand Yoff lu muy jànkoonte ci ay tolof tolof Abass Fall waa Grand Yoff nee nañ musul respecté leen musul leen respecté